mooy ñi nga xamante ni kat daan nañu jël alalu Sénégal maanaam di ko lekk di ko caax-caaxee loole lépp kat ñoo ngi jot ay xabaar yu wér yuy wane ne jëmmi atum 2024 daawuñ ci jël ñu bëree bari ñoo xam ne fii ci réewum Sénégal la ñu nekkoon ngir di caax-caaxee alalu Sénégal lu ni mel nag moo waral ñu bëree bari ci ñi nga xam ne ay détenus politiciens lañ ak ñoo xamante ci ni dañoo nekkoon ci nguurug Sénégal ngir di jël alalu Sénégal ñoom ñëpp kat daañu leen teg loxo loolee nag moo waral Pape Alé Niang yëkkati kàddu di wax ba tey jii nag yemul fi ni mel mi ngi yëkkati ay kàddu di wax ñi nga xam ne ñooy patriotes yi ci mbirum Ousmane Sonko di leen wax ne jamono ji li ci des bareetul Ousmane Sonko ay mbërëm leeragul waaye ñoom bu ñu fàtte ne trois mois rek moo des ci élection yi ngir ñu xam kan moo na nekk njiitu réewum Sénégal atum 2024 kaddu yi Pape Alé Niang avec Buzz Media TV seen de patriote